laaj bu njëkk bi ñu wax ndax ci jullit jumaa boo aji julli ji ñëwee dugg ci jàkka ji fekk imaam ji toog ci kaw minbar bi moo xam tàmbaleegoon na xutba wala tàmbalewu wala ñu ngi nodd li ñuy taxiyatul masjid nuyoo jàkka nga xam ne boo amee njàpp ci waxtu wu dagana naafila nga dugg ci jàkka sopp nañu nga julli ñaar rakkaan nuyoo ko jàkka ji moom lañ tuddee tahiyatul masjid ndax nga xam ne waxtu woo duggee ci jàkka rek te muy waxtu wu dagana naafila war nga koo def xam nga waxtu yi daganu la naafila xam ngeen ko mooy buñ jullee suba ba noppi waxtu yi jant bi fenk ak yooyu te jógagul ba jëm kaw doxagul lu mat xëy ju arab araam na julli fi waxtu wi jant bi xonq di waaj soo xaraam na julli fi te ngir Maalik mi nekk sax bu ñu xasee ba julli tàkkusaan ak fu jant bi mën a toll ci diggante bi amatul la am na yeneen ngir yoo xam ne dagal na la waaye ba jant bi xonq ki ba ci wàqati alquran yi sax booy jàng alquran ba agsi ci bërëbu sujjóot bërëb yooyu waxtu yooyu doo fi sujjóot da jàng rek wéy mu ne nag ndax léegi nga ki dugg ci jàkka ji fekk imam bi toog ci comme minbar bi dafa war a kàbbar ñaar rakka yooyu nga xam ne mooy tahiyatul masjid soo a toog wala dafa war a ñëw rek toog wax ne dëgg man dégg naa ci rajo dunia benn bis amoo habitude sax déglu rajo waaye keroog yàlla dogal man yem ci ñu taal ko waa ji ne nit ñi de ñu ngi bàyyi loo xam ne sunna la boo ñëwee ci jàkka fekk ilimaan ji di xutba da nga war a julli ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na bis benn waay dugg si fekk mu ne ci kaw mu bañ a julli daal di toog yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko diw mu wuyu mu ne ko ndax julli nga mu ne ko déedéet mu ne ko jullil mu ne nag kon xadis boobu lu wér la yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax kon dañoo war bu ñu duggee ci jàkka ak fu ilimaan ji mën a toll bu dee xutba bu toogee ci minbar bi dana war a julli nga dégg loolu muy njuumte lu xam naa lu bari dégg nañ ko wéy ca dëgg la xadis boobu loo amoon la waaye lu ñu man sooxal la ulamaa yi taawil nañ ko ñenn ñi indi man soox bi rek ñi nga xam ne dañoo indi taawil bi alxatafaani la woon waa jooju nit ku ñàkk ku sol ay sagar tilim ràgg te jullit ñi dañ daan def bu ñu génnee ci jàkka ji di sarxe bu ñu dugg see xam nga sib nañu bëgg wut place ca kanam ngay jéggi nit ñi tere nañ ko naka mu dugg ci bunt bi rek dal jot benn place dal di toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg jullit ñi gis ko ba bu ñu génnee ñu sarax ko mu tudd turam ne ko diw mu ne ah ko nit ñëpp dal di wal ba di ko xool kooku yonent bi di woo ci waxtu woowu ci béréb yooyu mu jóg taxaw nit ñi xool ko mu ne ko julli nga déedéet boobu jubagul dafa ne ko ndax julli nga ba nga ko woowee mu ne ko déedéet mu ne ko julli ba mu jógee di kàbbar nit ñi xool ko xam ne far gis nag ni mu mel ba mu génne ñëpp njëkkante di ko sarax circonstance boobu taxoon hadis bi ñëw bañ koo weesoo ulama wu yëpp imam Shafi rek moo ko mujjee bàyyi waaye ñu ci des ñëpp dañ koo dal di bàyyi xam ne looloo taxoon waaye toujours bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci xutba bi ku ñëw da ngay toog te wax na ne ñu ci laaju ñaareel bi képp ku ne aji wax noppil yow sa bopp maanaam laxawte maanaam wax nga kon kenn waru la wax bu sa continuer sax sukkandiku wuñu ci masala yooyu buñ seetee ne taxiyatul masjid lu ñu sopp rek la te xutba bi farata la ndax julli tisbaar julli ajjuma ko remplacé te julli tisbaar ñeenti rakka la ajjuma ñaar rakka ñu lay julli ñaar rakka ñu ci des ñaari xutba yi ñuy xutba moo ko moo taxaw taxawaay moo ko remplacé kon farata la xam ne lu ñu sopp rek war la tax ñu bàyyi ko julli gi lu ñu sopp rek la ñaari xutba yi farata la mu ngi mel ni ñaari rakka lu ñu sopp mënu la dàq loo xam ne farata la